Mouhamed gis nga ko kon mu mel ni ca euh, lii di front social mi ngay wéy di baax waaye ca poste moom mu mel ni jafe-jafe ba léegi jënnagu fa ndaxte ëpp na ay at mi ngi nii euh, ñuy rek euh, becci ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund foofu ci biir boîte. wallaay ni nga ko waxee xamoo ko sax ëpp nay at ndax en tant que taskatu xibaar doo topp benn sujet te boole woo ci jafe-jafe yi am ca ca poste donc poste c'est une direction a problème problème ya fa nekk kenn mënu koy nattable wala kenn bokk kenn mënu koy takk bokk ni mu ni mu ni mu ni mu bare ca post la ñuy dégg ay détournement ca poste la ñuy dégg ay dette ca poste la ñuy dégg ay licenciement d'ailleurs euh, directeur général bu ñu fa mujjee fal moo ñu jox xabaar moo ñu joxoon xabaar comme quoi euh, plus de mille et quelques personnes yi agent ya fa nekk gis nga ni mu bari dafa mel ni dafa xoju ci chiffre d'affaires yi nga mën a xayma ci euh, fukk ak ñett ci ay milliards yi nga xam ni moom ngay def ba ci moom sax mi ngi doon euh, xool yan yoon la woon a mën a jaar directeur bu mujj ba ñu fa teg euh, ngir liggéey ak junni ak juróom-benni téeméer rek ak lu teg ci ay agent loo wàññi wàññi carrément mbir mi su ko def voilà su ko defee euh, kër gi mën a supporter au moins euh, li nga xamante ni moom la koy teg mais poste dafa mel ni lan fa doon wax rek moo fa nekkoon ay recrutement yi nga xam ne yaa ma neex euh, gis sa benn waaye am na yoo xam sax d'ailleurs da ngay ñëw ñu recruter la doo fa xëy ngay fayeeku loolu kër gu mel noonu mbir yi du ko àttan te poste encore une fois dafa nekk banqaas bu amam solo ci mim réew te loolu itam kilifa yi yaakaar naa ni war nañ ci mën a jóg ñu xool ana ban pexe la ñuy teg ngir euh, saafara jafe-jafe mais saafar bu njëkk war na mën a doon xool euh, lan mooy fay nekk ni emploi fictif ñu génnee ko raxas leen moom set parce que 4000 agents quand même ci ab euh, <laughs> direction bu nga xamante ne ni chiffre d'affaires am 13 loolu je pense que ni jafe-jafe dëgg dëgg dëgg lay lay jur te ni ñu ko waxee nii buñ ci jugul mbir yi day gën a wéy rek problème yi di continuer ñu gis ni tey jii Alassane yu ci mel ni post ak yeneen euh, société nationale lu ci bëri li koy indi jafe-jafe bi moo di wàllu politique day laxasu ci biir ay recrutement politique recrutement yaa ma neex ba tax na loolu tey jii ak nguur gu bees gi fi toog war nañu càmbar loolu bu baax. te yaakaar naa ni ñoom comme rupture la ñu woote te itam ak appel d'offre yi lu bëri dina. dina war a mën a président sax waxoon ak société yi nga xam ñoo nekk ci réew mi parce jàpp nañu c'est un gros il y a énormément de complaisance ça on recrute des gens pour, les payer à rien faire et malheureusement loolu day déteindre ci li nga xam mooy ci résultat yi day compliqué c'est-à-dire moom treize milliards mi ngi amel état cent quatre vingt neuf milliards de francs CFA en termes de dette mais fan la ko poste ji fayee su continuer nii déjà on nous dit que ñi nga xamante ni mooy deux cent yi yëpp seen contrat à durée déterminée la dañu leen arrêté parce que poste mun leen rek déjà mi ngi am deux mille yoo xam mi ngi bëgg a tàqal yoog ñoom donc soo amee ñoo xam seen contrat jeex na forcément li nga mën a def rek mooy mhm. pour réduire les charges pour véritablement nga libérer leen mais il faut que yooyu nag ñu xool recrutement yi surtout en termes de recrutement véritablement il faut recruter selon les besoins de l'entreprise pour véritablement mën ko supporter mais su fekkee dañu bëgg a def rek euh, Euh, yaa ma neex mais lii la ñuy indi rek c'est-à-dire on va continuer à payer des gens à ne loolu jàpp naa ne doonu lu gën ci réew mi. ñu wax euh, ci ab phénomène boo xamante ne jamono yi ñu ngi koy dund ci réew mi bu baax sax di lu jëm ci wàllu xeesal mu gën a tar li ko gën a taral nag di réseau sociaux yi ba tax na tey ji réewum Sénégal ci Afrique jàpp nañ ni moo nekk ci ñetteelu place bi ci ñi nga xamante ni ñoo ci gën a jëfandikoo xeesal boobule dañ ci ànd ak Ramatoulaye fii ci Sénégal phénomène de pigmentation maanaam xeesal daal dina nduru lu nekk à la mode te it suñu jigéen ñi ñu ngi koy utiliser bu baax a baax. gars yi seddaay ci leen ñuy gën a diw ndax période tàngoor boo diwoo du ci ëpp da ñax ñenn ñi am na ñoo xam si ni seddaay leen gën a mën a xees par rapport ak boo xoolee ci la yaram bi yëpp du yàq ñu ci bëri dañ lay indil ay diw ñi naan sama dama am cere ñi naan dama am euh, ndoxum siti tiktok bi bi mu bi mu xewee ak euh, defarkatu diw yi ci yaram yu bëri yàqu te ñoom lan lay mélanger doo xam yenn produit la ñenn ci askan wi ñi ngi daal di dut baaraam jaaykatu diw yooyu le nga xamante ni ñoom la ñuy seddu ci réseaux sociaux yi. dañuy business seen euh, entreprise lañ bëgg mu dox moo tax lu ne dinañ ko wax. boo nekkoon te en état am na nooy xeesalee boo demee boo waree césarienne loolu danger la. la majeure partie ñu koy jaar duñ ko diwoo. lu ci mel ni itam dépigmentation des lèvres maanaam rocci suñu ay tuñ seetlu nañ ko it ci suñu ndaw askan wi bu baax a baax. amul benn loolu mënul àndul sax. góor yi pam moom man góor gën a dof parce que lèvre rose yaay cancer euh, lèvre yi. mi fii léegi. yàggul dara daal dinañuy lancé benn alerte rouge ci produit xeesal yooyu nga xamante ni moom la suñu ndaw Sénégal a di utiliser ba tax na xayma nañu ci une mortalité de près de cent pour cent décembre bi weesu. jaajëf Ramatoulaye Aka Mouhamed yàgg nañ ko wax xeesal baaxul waaye dafa mel ni tey jii la waalo gën a aay. Mm-hmm. <laughs> tey la gën a waalo gën a aay eh, te ni ko Ramatoulaye waxee ñu ciy gërëm docteur Fatmata Ly yi nga xam ne moo joxe sax eh, xibaar bi ne lu toll ci eh, près de cent pour cent depuis décembre. la ñu am ci taux de mortalité alaa yi cent pour cent. ci cancer de la peau. <laughs> oui ci cancer de la peau loolu. te it xeesal da koy andi. xeesal dafa doon lu yàgg ci ci ci mim réew te kilifa yi ñu ngi seetaan lu yéeme yéeme yéeme li ci gën a doy mooy sept sénégalais yoo gis wala dix sénégalais yoo gis set ya ña ngay xeesal. te li ci gën a doy waar encore une fois mooy euh, du ñu xam conséquence yi après lan lay doon. cancer yi boo leen waxee bon du ñu dégg mais benn li ma gën a naqari li ma bëgg a dénoncer mooy phénomène yi ñu gis ci réseaux sociaux yi ay xeetu jàmbak saabu xeesal ak xaw ma je sais xaw ma baax naam xaw ma baaxul mais yooyu kilifa yu ngànk euh, wàllu santé wirgu yaram dañu war a encadrer